def maam di amaat mbégte bu baax a baax a baax saa su ne rek di jàkkaarloo ak yéen fii ci Sénégal Buzz 221 nu ñu koy defee ak yéen saa su rek di ànd ak yéen ci lépp loo xamante ni événement la comme ni ñu koy defee dañu ciy ànd ak yéen pendant avant et après fu mu nekk nii nag ñu nekk ci li nga xamante ne moo di après combat bi Albourakh Even indi loon Sénégalais yi ñu koy dund démb ma dalaloon ci nag suma papa le grand champion Manga 2 ñu waxtaanoon ci euh, avant lamb ji ginnaaw nag bi lamb ji jeexee ma seet si ko tey ñu fas yéenee waxtaan yaatalaat ci li nga xamante ne moom la Sénégal sénégalais yi dund démb ma koy nuyu nag bu baax a baax a baax di ko bàyyi rek mu nuyoog mbokki internet yi papa maa ngi lay nuyu bu baax baax di la ziare. Eh, maa ngi leen di fay. di leen bu baax a baax parce que gis naa liggéey bi ngeen di liggéey. Mm-hmm. Eh, liggéeyal leen seen bopp askan mi ngeen di liggéeyal. Mm-hmm. rawatina en matière de sport. Mm-hmm. loo xam ne mooy suñu esport national buy làmb. kon maa ngi leen di gërëm di leen sant ci wàllu boobu bu baax baax a waaw di sant nag amateurs yi di sant Sénégalais yi ak sénégalaises yi yëpp. Mm-hmm. ndax gis nañ ne làmba mu ngi dellu soit fu mu nekkoon. Mm-hmm. demb kon ma ak ci mbégte lool. Mm-hmm. ndax ku gis làmba ji demb fàttaliku demb. waaw. waaw moom moo tax ma kontaan ci lool. kontaan ci mbër yi kontaan ci promoteurs yi surtout. boo xam ne moo organiser. làmb ji. Mm-hmm. mu am ci réussite. ndax nit dafa bëgg su defee dara yàlla dimbale ko mu am ci ndam. Mm-hmm. donc dem luñ ci mënti wax rek làmb ji réussir na. Sénégalais yi kontaan nañu. Mhm. kon de loolu moo amateurs yi kontaan nañu loolu moo ci am solo. Mhm. bu baax a baax bu baax a baax muy kàddu yu am solo ci li nga xamante ne moo di yaatal bi ak nuyoo bi waaye ni ñu koy waxee rek démb lamb amateurs yi bëgg nañ naka nga jàngatee lamb ci démb bi nga gisee mbër yi dugg ci stade bi fees yëg-yëg bi nga amoon démb ci stade bi lan la. non mooy suma yaram daw rek. waaw ma fal fàttalikuwaat démb. ndax soo gisee mbër yi ñuy dugg see. Mhm. ku nekk am confiance ci boppam nga xam ne lii. ku nekk victoire ndam ñor na ko. donc soo xoolee seen démonstration de bag soo xoolee avant événement bi nga xam ne ku nekk mu ngi ut ndam. ndam nag yàlla moo ko joxe ku nekk mun na def lu ko war. mais bés ba yàlla moo xam ku muy jox ndam bi. yàlla jox Balla ndam bi c'est pas parce que Tapha Tine mérité wul moo tax amul ndam bi. donc ñu maa ngi leen di ñaanal di leen féliciter ku nekk def na ku lu ko war yàlla jox Balla Gaye ndam bi. Mm-hmm. waaw wax nga ko bi ñuy duggee ñoom mbër yi démb contentement nga am ci biir stade bi waaye ci sa jàngat papa ancien lutteur euh, bi nga xoolee Balla ak tafaatin Tine euh, bi nga dugg see gisoo ci kenn koo xamante ni euh, da nga naan kii xaw nañ kaa laal ci mystique démb ci stade. non foofu mun ak loo xam problème galaaju mystique. mais foofu ci jànget bi ak ci doxin bi ak ci jëfin bi mun nga wax ne kii moo gën a pare moralement xam nga làmm dafa am facteur yu bëri donc suñ la dominé ci yeneen facteur rek mun la indi ay gàllankoor bu bëri bari bëri mm-hmm. waaw mm-hmm. parce que soo xoolee entourage bala demba dafa changé carrément mm-hmm. am ay kilifa yu ànd si ak moom waaw donc Tapha Tine aussi la même chose mais moo ëppoon càmbar càmbar ci entourage am soo ko gisee. Mm-hmm. waaw mm-hmm. donc psychologiquement Bara était plus fort que Tapha Tine dans le terrain avant le combat bi. Mm-hmm. waa moo gënoon a nekk ci làmb ji bi nga leen xoolee ñoom ñaar. moo gënoon nekk ci làmb ji mais gënoon a dal ci làmb ji moo gënoon a wone confiance ci làmb ji. ci seen bàkku ku ci nekk seetaan nga bàkku. bàkku bi. ci préparation mystique yi. bu ñu defantee tout xam nga mbër. dafa am moment boo xam ne dangay ngay gëm sa bopp ba sa moroom lu muy def sa doo ko fàlle. fekkee concentration bi sa gëm-gëm bi sa xarañte bi ci bés bi. Mm-hmm. waaw. Euh, gis nañu manque de concentration démb ci ki nga xamante ne moo di euh, Tapha Tine ndax euh, benn moment balaa ngi def ay affaire waaye dafay mel ni ku koy bàyyi xel de trop te bu tafaat def balla du ko bàyyi xel. mooy concentration bu ma lay wax yow. liñ la indi ak sa mboq bi. liñ la indi. ñu ngemb la. Euh, tous beeg yooyu noonu ba tey danga nga gis mbër mi. waaw xam nga ci tuus bi ci préparation mystique bi mun nga xalaat ne kii euh, moo gën a pare keneen ki. ndax yow da ngay gëm li nga indi. nit bi gëm lu muy indi. et je pense que ci galaaj yi am na loo xam ne waruloo faale sa adversaire ci lu muy def. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. def. Tapha dafay mel ni ku koy bàyyi xel mais bu Tapha def Balla du ko bàyyi xel. waaw loolu moo loolu mooy wone ne Balla moo gënoon a pare euh, Tapha. ci préparation mystique parce que lu tax Balla du fàlle lu muy def parce que gëm na lu muy def. Mm-hmm. lu ma mënta def yoonam nekku ci. Mm-hmm. Tapha bugg dugal boppam ci lu muy def dama koy essayer tere. concentré wu ci loolu waru concentré wu ci loolu. caru ko euh, bàyyi ko gëmal li nga gëm. gëm li nga indi. bañ a faale sa adversaire lu muy def. Mhm. loo mënta def doo ko faale doo ko gis. Mhm. warul gis lu muy def voilà. Mhm. jàngat euh, mel na ni ñu bëri gis nañ loolu xaw ma ndax sa gis-gis Tapha daf ko bàyyi xel de trop ci biir làmb ci xam nga bàyyi xel daf la indi ba nga ragal. sa adversaire soo ko bàyyi xel trop. dangay ngay dem ba ragal. adversaire dañ lay ngem wax la li nga war a def yow nga gëm li nga war a def ñëw exécuter li nga war a def. Mhm. te soo bàyyi sa adversaire doo ñemee def dara. Mhm. ragal day dugg ci biir. waaw waaw ragal day dugg ci biir. ragal day dugg loolu dafa feeñ ci làmb ji. Mhm. waaw euh, kon euh, ñu bëri gis-gis boobu lañ si am. moralement. physiquement. baara moo gënoon pare. non Balla Balla moo gënoon a pare Tapha mm-hmm. waaw parce que psychologiquement soo ko gisee ci préparatif yi nga xam ne Balla Gaye était prêt psychologiquement pour def lu mu war a def dem. Mm-hmm. woo ne lu mu indi amateurs yi. Mm-hmm. ne gën naa suma bopp te gën bi ma gëm suma bopp lu ma bëgg laa koy def. premier contact bi. wone na ko dafa avancé ci kawam xeex te Balla toujours noonu lay def soo tegee tànk. day avancer ko kaw. koo mënta doon su dee sax day ñëw mu def ko domine ko gaañ ko ba moom ci suma gis-gis. Mhm. ak suma xamam ci làmb mënoon na ko dóor à la fin pour mu daanu. balaa balaa balaa arbitre bi di siffler sax mënoon na ko dóor mu daanu. Mhm. arbitre bi may ko chance mu arrêté loolu. ñu dellu siwaat balaa am lu muy dugal ci boppam. Mhm. confirmer ko. ne suma ma supporter dinañ xam ne bëri naa parce que xeex naa premier contact. Mm. deuxième contact dinaa indi bëri daan ko ci bëri. Mm. donc loolu mooy combat Balla mu mu def. Mm-hmm. doon na ko premier contact. deuxième contact mu woo amateur dam ne su ma bëri mu ngi fi dama koy daan ci bëri. mu def ko mu def ko yàlla defal ko loolu. Mm-hmm. waaw kon gis-gis bi sénégalais am dafay xaw a nduroog sa analyse ci ñu bëri dañu naan Tapha dafa desee ñeme à 100 pour cent ci biir géew bi. xam nga soo sóoraale sa adversaire foo jaar eh, ñeme ko eh, kii ragal ko. soo gëmul li nga indi seetuloo li nga indi di seet sa adversaire lu mu indi ragal ci ragal la lay yóbbu. Mm-hmm. man su ma ngéemoo lu ma war a def damay wax ne man màngal lii laay def tey lii laa def nag munul tax ma daan munul tax ma daanu. Mm-hmm. mais lu ma décidé ak lu ma bugg a ak su ma yéene moom laay def damay foncer ci nit def lu ma war a def. mais du ma xool li nga indi du ma considérer li nga indi soo demee ba considérer sa adversaire lu mu indi rek ragal mu ngi dugg ci yow. foofu lu la téye ci làmb ji dootul yomb. waaw day day day métti. day métti mosuma dal ci sa làmb. dal ci benn làmb. làmb damay ñëw gëm lu ma dox gëm ne maa ngi. ci for def lu ma def su ma daanoo ma xam ne yàlla moo tax ma daanu su ma daanee nag ma xam ne yàlla moo ma jox na loolu la mais dama ko jox cër ba mu mat mhm. waaw dañ àdduna bi yëpp xam ne lii jox naa ko ou bien yow sa confiance moo la euh, daanuloo waaw euh, dafa am beneen gis-gis bu ci bëri am ne Tapha dañu ko téye mystiquement ba lu bëri minu ko ndax bi arbitre bi soufflé bi combat bi daw gis nga fii kuñ fi téye mystiquement ba mënul def dara non xam nga mystiquement munul ba munul def dara kon da egsi ci làmb ji yooyu ay waxin la mais moom moom sa bopp yow soo gëmee ne man mosuma bëre combat boo xam ne dama ñëw te ma dara. Mhm. te peut-être nit ci nañ wax ne maa nga dañ ko jeexu ci kalaaj mais yow mun nga bañ a wone loolu bañ a gëm loolu ba def dara ci làmb ji. Mhm. waaw tey démb boo ko yoroon. nan ko doon indee moom Tapha. non du ñu egsi fii parce que mbër bi di nga gis mbër bi su ñëw ci enseigne bi. nga xam ne sa mbër bi nekkatu fi donc da nga war a indi xelam. Mm-hmm. dellu soit xelam ba mu nekk ci biir combat bi. Mm-hmm. mais Tapha nekkatuloon ci combat bi parce que déjà su fekkee ne sa adversaire lu muy def yaa ngi concentré ci lu muy def. yow li nga bëgg a def nooy def da nga perdre sa temps. Mm-hmm. nga xam ne gëmal li ngay def même su la sànni ay garab su lay joxoñ ay béjjén su lay euh, jam ay béjjén sa yoon nekku ci dugalal sa boot ne lii. yàlla moom laa ñaan pour mu jox ma ndam yàlla damay def lu tax mu may ma ndam. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. mais soo xoolee sa adversaire lu muy def xool galaaj lu muy def nga bàyyi sa xel. <laughs> ragal mu ngi bëgg a ñëw de. <laughs> <laughs> waaw te à feeñ. waaw de toute façon loolu laa bëgg a wax. Mm-hmm. waaw muy combat bu neex boo xamante ne démb amateur yi ñëpp mandi nañ li nga xamante ne mooy làmb euh, ban Balla nga gisaat démb papa. Balla bu may gisaat. mooy Balla dafa ñëw confirmer lan lay confirmer amateur am mooy bëre bi xeex bi parce que gis nga ñëpp dañu waxoon ne Tafatine daf koy dóor mu ñëw xeex ak Tafatine ba am occasion boo xam ne mun na dóor Tafatine mu daanu mu téye boppam arbitre bi atte mu ñëw ñëwaat une deuxième fois provoqué Tafatine ci xeex yóbbu ko ci bëre yóbbu ko ci bëri daan ko ci bëri pour wax amateur am yi ne man Balla bu nekkoon demb bu njëkk moom moo ñëwaat tey maa ngi ci bërëb bi xeex naa woon naa leen ne mun naa bëriwaat sans xeex waaw. kon ñi nga xamante ni dañ doon euh, polémique di wax Balla jeexal na Balla mënatul demb am na lu mu leen wanaat. waa am na lu mu leen wanaat mais ça suffit comme par exemple moom mu confirmer loolu continuer ak loolu c'est pas parce que daan na Tapha Tine war na baisser les encore. Mm-hmm. su baissé les bras encore rek day am problème parce que sport moo ne noonu da ngay dem mu na ba egg si au niveau mun a téye au top niveau. loolu moo gën a métti nag. Mm-hmm. nekk au top niveau téye ni nga nekkee au niveau. mu gën a métti. Mhm. waaw loolu yombul ci li nga xamante ne mooy sportif waaye gis nga ni Balla bi mu nekk nii moom dugaat na ci làmb parce que ñu bëri dañ ne woon ngi woon ci saaku yi. non dugaat na ci làmb ji parce que def na espoir. Mhm. mbër bu mag su defee espoir rek yaa ngi ci biir dugal nga ci làmb ji. Mhm. waaw bu defee espoir yaa ngi ci biir làmb. waaw te def na espoir bu rëy boo xam ne ñu bëri kontaan nañu ci am na ñoo xam ne nekkuñu ay supporters am sax mais franchement wax nañu ne booy bi dafa indi jom dafa indi fulo dafa indi fayda moo tax yàlla jox ko na te ànduñu ak moom. ak moom waaw. macha allah euh, ci beneen gis-gis bi nga xamante ne bëgg naa ñu indi ci tuuti leeral daan nañu gis seen jamono euh, mbër promoteur tëgg ko ànd ak beneen mbër mais dafa tombeek jamono ji ñu bëri di si indi polémique promoteur tëgg làmb far ak mbër loolu ndax du yàq làmb. non loolu mënul yàq làmb. promoteur boo gis am na mbër. amul promoteur boo xam ne amul mbër. Mhm. yow mii xam ne kii mbërëg diw la mu jox la avance nga nangu bëral ko je pense que yow mun nga xam ne kii su nekkee dërëm dina ko ko yokk su nekkee loo xam ne mun na gis loo xam ne mun na ko def pour mu daan la ñu def ko yow nag yow mi am confiance sa bopp ba jël combat bi yow yaa war a aar ci fànn yooyu yëpp préparé pour ñëw bëri ji. Mm-hmm. mais waratuloo amatuloo jot bi wax ne promoteur bi dafa far ak kii. Mm-hmm. loolu loolu amatuloo droit wax ko sax. ñu bëri dañoo bi làmb jeexee dañoo am benn gis-gis mooy Tapha dañu ko sot ba daan ko. Tapha naka lañ ko sodee même suñ ko sodee su fekkee ne préparé nga. Mm-hmm. xam nga mbër su yàggee. Ah. ci enceinte. yàgg ti am ay ndam. su daanoo ñëpp dañu wax ne dañ ko sot. Ah. waaw. Balla bu mu daan. dañu waxoon ne ay bu muy daan dañu waxoon ne ay baayam dañ ko ñoo koy sot ancien mbër yëpp dañu ànd ak moom ànd ak papam di ko jàppale bu mu daanoo waxuñu loolu bu mu daanaatoo waxuñu loolu tey bu mu daanee nag ñu bëgg a wax ne dañ ko sot man loolu ànduma ci waaw uh-huh. Balla moo préparé kombaam am am combat am def ci fula ak fayda ñu mu àndal def ci fula ak fayda ñëw ci làmb ji uh-huh. Tafa aussi àndaat ak mbokkam def ci fula ak fayda yàlla xañ ko na net ne yàlla moo ko xañ mais def na lu ko waroon yàlla moo ko joxul ndam. waaw ci li nga xamante ni ba tey moo di làmb ji Balla jógee ci Tafatine euh, Fall fan la mën a jëm tey ci làmb ginnaaw bi mu jógee si Tafatine parce que gis nañ euh, grand contre petit lañ doon wax première sortie moom mooy pëti chance. am ci défaite tey mu jëlaat tafaatin confirmé léegi fan la Balla di jëm day mayaat booy chance wala day tàngalaat ci jëlaat ci ñi nga xamante ne ñoom la maasee. no Balla fu mu mun a dem ci làmb fu nekk mun na dem ci làmb Balla mun nañu wax ne dollar la lu daanu tey. Balla lu mu def ci làmb def na ko. am na lu des ci moom parce que am na innovation bu amaat ci làmb ji. Mhm. innovation bu amaat ci làmb ji ampleur lañ ko wax fu mu nekk mais waxuñ ko roi des arènes te am na roi des arènes bu fi nekk. Mhm. bu confirmer ne mooy le roi des arènes. mooy Modou kenn mënul wax ni Modou Lo nekkul le roi des arènes. waaw kon nag làmb ji day gën a neex plus tard nu mu gënee neex ku nekk xarañam te ak entourage am dina bugg kuy su fekkee ne may lu roi des arènes nangu couronne bi ma yore suma couronne ak suma roi des arènes su ma jébal làmb ji nit yi ma jébal leen làmb ji nag mais xam naa ne egg naa fu ma war a egg bala aussi ay mbokkam couronne bi mu yor non dina bëgg jël le roi des arènes wax ne le roi de arènes officiel man bëgg naa ko jël jël empereur bi tàggoo soit ak suma mbokk yi tàggoo ak suma ak yi ou bien ma continuer ak amateurs yi ou bien ma continuer ak suma public. Mm-hmm. waaw donc yaakaar naa ne làmb dafa gën a ubbeeku ñeneen aussi Eumeu Sène mun na wax ne euh, mos naa jël le roi des arènes. dama bëgg a jël empereur bi. donc làmb moo ubbeeku xale yu ndaw yi am vision. ne ah man daal dama bëgg a mos ci roi des arènes. Mm-hmm. ñeneen ñi wax ne non empereur bi. xaw ma daa moo dàq mais am na lu mu am lu mu am yooyu bëgg naa ci jot donc làmb ubbeeku na. waaw xale yi nag dañu woon xarañte. Mhm. pour def loolu. parce que gis naa ay xale yu bari yoo xam ne. Mhm. ñu ngi tënk ay mag. dëgg la ku mel comme flan. xam nga déjà mu am na mu bu mu doon lancé ay. ou bien jot ci ampleur bi. Mhm. donc làmb moo ubbeeku. làmb moo soppeeku actuellement. ndax innovation yu am. gis na am. réglement bi amoon na fi. mosuñu res respecté règlement bi. CNG de décision lii la ñu war a def parce que dafa nekk ci làmb ji. renouveler confiance nit yi que lii dinañ ko def ñu def ko une première mu réussir deuxième mu réussir mu réussir. quatrième fois bi mu nekk en événement. moo xam ne moo combat bi passé. ñu respecté ko yaakaar naa loolu sant yàlla. sant waaw. Euh, ñu bëri bi mu pare dañu ne Eumeu Sène ñu ne na Balla jëlaat ci xale yi tey boo ko doon defal choix fan nga koy yóbbu papa. non mbër amul fu ma ko defal choix mbër mooy xoolal boppam. lu ko doy lu mu am confiance wax ne lii laay def kii laa jël. Mm-hmm. Balla Eumeu Sène neexaat na. non amul lu neexul wax naa leen combat bi combat yi combat yëpp a neex donc ku ne nag ak entourage am moo xool fan lay yóbbu mbërëm mbërëm bi waaw mais combat yi yëpp a neex amatul combat boo xam ne mun nga ko tax mm. euh, tëgg. te neexul. xoolal Modou Lo Siteu. combat bu neex la. dara dàqu ko. Mhm. ci wàllu bëre ci wàllu ambiance. ci mhm. wàllu folklore. Mhm. yëpp dina fa am. comme combat bi rek. comme combat donc combat boo tëgg léegi. ci xale yooyu yëpp muy mag yi yëpp. combat bu neex la. combat dafa am ñu ko wax am ñu ko bañ. Balla Franc ndax làmb jooju gis nga ni ñor na wala euh, teelul ci Franc wala gën na ci Balla. non loolu yëpp ça dépend ci entourage nit bi. entourage am lu muy décider. moom mu gëm loolu mun na jël ku ko neex mën na jël <laughs> euh, ci leneen di gën a sénégalais yi gën a bëgg <laughs> gis nañ euh, waa Guédiawaye du ci communiqué à chaque fois euh, couronne empereur couronne roi des arènes ñu tëggaat leen ku ci na yor sa couronne ñëw ñu bëree ñëw ñaar est-ce que loolu dina neex ku daan moom ñaar yëpp. non xam nga loolu ngay laajte. wax naa la ko sànq ça dépend ku nekk ci yéenam lu mu bugg ci carrière ci temps am. mais ndax am nga yaakaar Modou Lo Balla bëriwaat. non man du ma la wax ne am naa yaakaar ci lii ou bien amuma yaakaar ci lii làmb mooy dox làmb day dem ba foog ne lii loon am te mu amaat. Hmm. waaw loo gis ci làmb mun na am. tant que mbër yi ñu ngi ci làmb ji loo gis ci làmb promoteur yi nekk fii day ñëw pour liggéey. Hmm. ça dépend ci promoteur boo xam ne osé na certaines sommes. yaakaar naa ne benn lutteur du ko bàyyi mu dem waaw. waaw dëgg la ndax moom duñ ko fayal mbër ay ay ay ay mbokkam kenn kenn mosuñu xalaat ne dañu egg cent millions ñun mosuñu egg cinquante millions ba ay mbër egg si léegi ci cent millions. ci cent cinquante. Mm-hmm. donc dañu egg si mu egg ci cinq cent millions cent millions et quelques. donc suñu egsee foofu. ndam làmb la. Mm-hmm. ndam suñu sport national mm-hmm. te loolu lañ leen di ñaanal. waaw. kenn mun na jógee France ne mun naa jën combat bi jënd ko milliard pourquoi pas. benn mbët du hésité. pour jël loolu. Mhm. donc lu nekk mun na am ci làmb ji léegi. vente en chair la. vente en chair bu lépp mën naa ne. waaw surtout xaalis bu du question xaalis bu taxaw taxaw sa dépend ci xaalis bi. xaalis bu weex tàll lan lay waaw xaalis bi moom ku ci ne eh, tedd nga bëgg teral say waajur. te buñ la wanee lu leen war a mën danga koy jël. waaw loolu dëgg la. Mm-hmm. loolu dëgg la. macha allah ci eh, kàddu yooyu waaye ci leneen loo xamante ne aussi démb ñu bëri ñu ngi doon am xel ñaar jàpp ni eh, làmb ji mbëri ñu ngi bëre waaye du yegg ndax problème temps wala réglement bi nga xamante ne CNG jël na ko ne 19h45 wala 30 lamb ji day jeex ñu bëri nag jàpp nañ ne ñaari mbëri du ñu bëre mu yegg si jàmb réglement boobu papa lan nga ciy wax. non réglement bi dafa baax dafa yàgg fii kon nag suñ ko indaatee pour ñu doxal réglement boobu yokkute làmb la. la preuve étant donné di grand combat combat bi benn combat munu ko gën a rëy. Mhm. te respecté nañ ko. làmb ji teel na jeex. Mhm. donc combat bu ñu mënta teg fii. ku nekk su toppee règlement bi luñ ko wax lu mu signé ci contrat am yaakaar naa ne làmb ji de teel a tas. Mm-hmm. problème bi ci bi la. wala ci promoteur yi la ñun ñooy bëgg làmb ji guddee. non ñu bugg làmb ji guddee ñoo bugg ñu guddee rek nekkul ci promoteur nekkul ci mbër bi ndax mbër bi xam nga ne tel heure nga war a ñëw heure boobu soo ñëwee dara du la ci fekk yow doo nangu ñu wax la ne. telle heure ngay ñëw soo ñëwul heure boobu dinañu jël sa xaalis nga toog heure bu la neex ngay ñëw. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. Euh, dama ci dégg yu bëri ne jamono dafa dox ndax làmb daan jeex dix-neuf heures dix-huit heures mënoon na nekk waaye jamono dafa dox dox boo xamante ne léegi euh, ni promoteur bi day tëgg làmb indi waykat indi orchestre te dañuy bëgg def ay déco def son def lumière bu teel a jeexee yooyu ñuy bëgg a taaral ci làmb yëpp duñu ko mën a am. non dinañ ko mën a am parce que su teeree rek yëpp dinañ ko mën a def làmb bu njëkk ba. daf doon am dañu doon taaral. ndawra bi ñëw séeréer yi ñëw joolaa yi ñëw ñoom du ba lees dagg garab yi egsi donc ça dépend ci temps bi ngay am temps bi ngay am moom ngay exploiter pour def événement yi nga bëgg yëpp def. làmb ji demb am na yëpp. am na yëpp am na musique am na folklore. Mm-hmm. ndaw rabin ah. gis nga sëriñ grand sëriñ de Dakar bu mu ñëwee. te temps bi jëlu ko. jëlu ko jëlu ko. kon léeg mel ni euh, ci ñi nga xamante ne ñooy acteurs yi léeg-léeg ñoom ñooy def yenn yi pour lu leen neex. waaw ci organisation bi ça dépend ci organisation bi rek. Hmm. parce que organisation bi su normalé ni ñu ko war a defee yëpp dina jaar yoon. Hmm. mbër yi suñu respecté seen contrat boo xam ne seen ménager def ko jox ñu liir ko baa ñu liira leen ko ñu wax leen lii soo ko defee lii dina la fekk ci lii soo ko defee lii dina la daal yaakaar naa ñoom ñëpp dinañ ko respecté. Hmm. suñ ko respecté benn problème bu ci am. parce que yow. nga nekk nit jox nit sa confiance mm-hmm. mu nekk sa ménagère mu indi kayit ne la kayit bi lii la wax lii la wax règlement bi lii la wax nga ne ko waaw d'accord naa mu signé ñu yóbbul la ko jox la sa xaalis mm-hmm. yaakaar naa ne soo ñëwee da nga war a respecter loolu. Mm-hmm. lu ñu la def yaa yaa ko def. lu ñu en tant que un champion. un champion tey gis nañ ni làmb demee ci wetam démb muy euh, mustapha Tine tey bu doon ay kàddu conseil wala looy partager ak moom pour mu gën a bàyyi xel ci làmbam lan nga koy dénk. waaw mu gën a waxtaan ak mbokkam làmb entourage moo ko yor. gën a xool stafam bu baax. gën a waxtaan ak entraîneur am. parce que am na fay yoo xam ne entraîneur bi moo ko gën a mun a gis. moom mu liggéey ci loolu. xale la avenir bi mu ngi ci gën a ma mu jëlaat defar bi. teg ko ne. yàlla moo ko bëggoon noonu yàlla def na ko. mais mu bañ ko yéen. su ko yéenu nag ay mbokkam ménagère am entraîneur am ñoo ko war a dellusiwaat naka lañ ko euh, dellusiwaatee defal ko travail psychologique waaw ba mu gëm ne moom war na am dara ci làmb ji euh, règlement bi ngay wax xoolal Ada lu mu def keroog biñ ko defee tegee daan liñ ko war a deg ñëpp a ci kontaan parce que gis naa le président de ménager ne gis na lu ñuy def mais bëgg naa ñu wàññil ko ko. Mm-hmm. accepté naa li ngeen def mais damay ñaan pour ñu wàññil ko. Mm-hmm. c' est contradictoire mm-hmm. puisque ko defee. kenn du ñu respecté. dëgg la kenn du respecté làmb ji. waaw donc yooyu yëpp ay exemple yoo xam ne. ku nekk soo toppee charte bi la wax. dara du la ci fekk. ba dara su ta fekkee sa ménagère am na droit riposter. Mm-hmm. waaw à chaque fois dañu koy faral di wax ñenn ci mbër yi ne CNG bi jël décision wala bi def règlement dafa war a woote làmb ñu waxtaan waaye dañuy tëju rek génn na lii lañ teg ñoom it dañu faral di naqaru loolu wala ñu koy ñaaw. non je suis désolé règlement bu ñu mën a jël jël ko dañ ko wax commité directeur suñ ko waxee commité directeur ba pare ba décision bi dañ ko envoyé écurie yi école képp président des écoles yi ñëpp lañ ko envoyé ku nekk liir ko ba CRG yi yëpp dañuy jot ay lettre ci décision bu ñu jël amul décision bu ñu mën a jël te ñëpp yëguñ ko te ku ñeen yónnee lettre di ngeen xaar retouram xool gis-gisam ak li mu jàngat ci mbir mi non xam nga suñ la yonnee lettre règlement bi mu am mu ngi fii ñu ngi koy suivre lettre bi yónnee la pour waxtaan la wala lettre dañ la ko yónnee pour xamaleen lii lañ def yónnee la réglement bi ñu def dafa yàgg règlement bu yàgg la ñu rappeler nit ne règlement bi il faut nit ci respecter ko dañuy woo nit ci ne à partir de tel jour telle date loolu dañu kii réglement boobu waaw. kon euh, mbër yi génn naan dañoo war a waxtaan ak mbër yi waruñoo xeer gi jël décision loolu kon ñoom ñoo jotul information. mais mbër bi lu ñu war a waxtaan ak ñoom seen ménagère mu ngi waxtaan ak ñoom soo amee loo xam ne gàllankoor la ci yow te xamloo nu mu demee am nga droit ñëw. Mm-hmm. ci directeur administratif laaj ko dama jot lii te xaw ma lan la jot lii xaw ma. Hmm. ba nga ànd si ak sa ménagère. nga laaj ko est-ce que jotoon nga lettre lii est-ce que xam nga lii. Hmm. parce que balaa ngay def dara balaa ñu la dégg dara dafa fekk nga signé ko. danga koy signé ne d'accord naa loolu d'accord nag amatuloo loo ci wax. Hmm. amul lu ñu def te ménagère d'accord ci signé ko. amul lu ñu def te mbër bi d'accordul signé ko. te léeg nag kon léeg maa tey mooy am. ah soo defee n def li la neex. soo defee bu la neex. ñu yoon teg la loxo rek. Mm-hmm. waa kon nag ñi critiqué CNG yëpp nañuy moytu nag di def li leen neex balaa CNG di def li ko neex ah. muy lu am solo ci leeral bi ah di kontaan bu baax aussi ci li nga xamante ne moo di. Euh, jotaay mm-hmm. CNG du def lu ko neex. Ah. CNG dafa am lu ko tenk ay règlement moo ko tënk te nit moo ko bàyyi foofu. Mm-hmm. nous sommes de démembrement de l'État am charte yu ñu jox am ay règlement yu jox donc amuñu droit def lu ñu neex. waaw mais ci li nga xamante ne mooy couronne empereur bi papa ma tëjee si parce que dégg nañ la promoteur am lu mu ci wax ki koy jël dinañ ko fay chaque fin de mois 1 million 500 utal kaay sponsor yu mu signé partenaire di ko jox ravitaillement pendant 6 mois loolu tamit dañu ko signé CNG wala promoteur bi moo jël engagement yooyu bu ko defee baax na su ko deful CNG du ko topp ci dara. non xam nga promoteur bi. mu am xaalisam. mu xam budget am. am na droit moo xam ne ku daan suma gala bi. Mm-hmm. ku daan ci suma combat bi dinaa ko defal teraanga bi. dinaa ko jox lii. wax ko yëpp ba ñëpp dégg ko. donc promoteur ça engage le promoteur. loolu waaw non bokkut ak reliquat beeg yooyu. yoonu CNG nekk loolu euh, loolu à part la. loolu yoo xam ne promoteur bi moo bëgg a def loolu. wax ko d'accord ko ak mbër yi signé ko ak mbër yi. ok waaw mais luy ñëw CNG. non non ñëw amul droit ñëw CNG. su amee CNG su fekkee ne promoteur bi bugg na ko assister. CNG mun na ko assister mais su bëggul CNG assister ko promoteur bi rek ak mbër bi mun nañ ko lijjanti. ku doon CNG confirmé wu ko mais promoteur bi la engagé mu neex ko mu teg ko def ko. waaw promoteur bi comme tey promoteur bi su ko neexoon demee mu ne le président des arènes lay teg pour le waaw. kenn mënu kenn mënu ci de suite. yooyu ay cadeau la pour mbër mi ah. waaw loolu marketing la. marketing la pour l' mësul am ci làmb ji. ampleur boo xam ne danga am prime. am salaire am salaire. oui sponsor. am sponsor. ñun le roi des arènes lu ñu amoon mooy saay boo indee sa drapeau am na lu ñu lay jox soo toogee trois mois am na lu ñu lay jox mosal waaw loolu la. mais saay boo ngémboo indi drapeau bi dañ la jox dara. Hmm. waaw waaye CNG empereur mënul ëpp doole roi des arènes bu CNG. non ci CNG. non mënu ko ëpp parce que pourquoi le CNG c'est un démembrement de l'État te roi des arènes ñu fa nekkoon CRP ñoo ko defoon ñu accepté ko. c'est pourquoi Alioune sar am na benn jour bu muy def. Euh, conférence de presse ou bien point de presse am na fu mu waxee daal le seul roi bu ñu reconnaître mooy Manga 2. am na ñu mu neexuloon am na ñu mu naqari yoon. ba ci ay baat. mais loolu moom lu leer la la wax dafa am ci yoon fu mu ko teg. Mhm. waaw loolu euh, lamb wax ñu ci kontaan bu baax a baax a ci leeral yi si encore ndax saa su ne rek dañu koy faral di bëgg bu ñu toogee ak kilifa bu mel ni moom bu ñu waxtaanee ñu ñuy bàyyi xel mën see jàng jëriñu ci te jàpp naa ne loolu la ñu bëgg ci li nga xamante ni moo di waxtaan ça fait un plaisir papa ma am ak yow jotaay comme ni ñu koy defee saa su ne. waaw di leen sant bu baax a baax di sant suma entourage comme ni ma ko waxee ak suma famille yëpp. Mhm. ak suma xale yi gune yi 24 yi. maa ngi leen di sant parce que ñoom dañu bëgg a làmb même dañu toog xale yu tuuti yi di dem di bëri ji ay combat yu ndaw. Mhm. donc maa leen di féliciter di leen nuyu bu baax a baax. Euh, di nuyu suma xale yi ñu nekk Joal Fadiouth aussi. Mhm. boo xam ne gune maa ngi la. maa ngi leen di nuyu. Mhm. di nuyu képp. ku dëkk ci gox yooyu vers Joal Fadiouth mm. vers Fadial vers Ndangaan vers Fimela mm. ñoom ñëpp les villages environnants maa ngi leen di nuyu mm. di leen sant bu baax a baax parce que seen taxawaay rafet na ci seen doom yi seen taxawaay rafet na ci seen sati yi ndax xam na ne li ñu def mooy suñu sport national demuñ ko jéegaane fenn ñun ñoo ko moomal suñu bopp mm-hmm. di la wax ne nag mm-hmm. tey ku dëkk l'empereur de l'arène keneen waxaat le roi des arènes kon rëy am na fa. am na te bul fàtte ne ñu ko jël yëpp. ñi ko jël yëpp. Mm-hmm. Ah. c'est des exemplaires Modou Lo. Mm-hmm. kenn mënul wérante ne nekkul le roi des arènes c'est le roi des arènes officiel parce que dafa bëri ak moromam yi bëri ak magam yi bëri ak rakam yi. Mm-hmm. confirmé. waaw balaa ñëw. ñu teg euh, l'empereur mu confirmé waat. kon làmb ji ubbeeku na neex na. ubbeeku ah, waaw macha allah donc maa ngi ñaanal maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp mm-hmm. yàlla jàppal leen ku nekk lu mu bugg a moo ko xam mm-hmm. yàlla defal ko ko te mu nekk lu gën ci moom amiin euh, kontaan nañ bu baax a baax a baax ci jotaa bi euh, comme ni nga koy defee saa su ne ñoom suma ay frère lañ ak samay sœur muy njaboot gi nga xamante ne ñoo nekk ba Paris chaque jour nga leen di nuyu tey maa leen maa leen di nuyu waaw jërëjëf jërëjëf donc mënu ma dem aussi te nuyuma les anciennes gloires de la lutte sénégalaise ñu mel comme euh, Mohamed Ali mm-hmm. mu mel comme Pape Diop le champion d'Afrique lu mm-hmm. mel comme Souleymane Diaw bu wàllu waaw ñu mel comme ñoom Bordeaux mook mm-hmm. euh, ñu mel comme euh, kii béy ndongo béy donc su ma toogee ci lim fii mun naa jum mm-hmm. Ndiouga Dia boo xam ne keroog moo doon fecc ci combat Modou Lo bi fecc bu rëy ba <laughs> kon ñoo ñëpp mbaartin mbaartin yéen ñëpp xam ngeen ko fu ma nekk rek mu nga fa bokk ci Manga production bokk ci école de lutte Manga 2 ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu rawatina nag suma superviseurs yi ñoo xam ne ñoo ànd ak man ci lutte traditionnelle ma nuyoo bi ma jaarale ko ci Alex Ka xam ne mooy coordonnateur bi mooy def yëpp ak le superviseur waaw gis naa seen liggéey ñu mu xarañee ba drapeau chef de l'état maa ngi leen di félicité mm. waaw xam ngeen drapeau chef d'état jàmpoon na waaw ma Dialari aussi de remercier le président de la République, de remercier son premier ministre, de remercier le ministre des Sports, de la jeunesse et de la culture. lu rëy bu mu def. loo xam ne c'est la première fois ñu di ko am. ci drapeau de chef d'État bi ma nekkee fii ba léegi. donc kooku ñu jar sant la. te mu jàmp. seetul ne dafa jàmp ñoom lu war yëpp mu def ko. def ko.